lancement projet promet vraiment muy projet bu am solo bo xamni dafa ñew ci waxtoom ndax tay xamnañu ni euh àdduna bi ni muy doxé ak Covid 19 bi ak liñu euh, exiger nit ñi ñuy am euh, distanciation sociale moy ñuy ak yoyu tay système éducatif bi xawon nañu xawon na soxé tuuti mais tay projet bi mu lancé nek na projet bi nga xamni moy indi solution pour que de manière définitive euh, enseignement bi ak apprentissage mëna continuer te vraiment dootul am benn yàqu-yàqu ci njàngale mi donc je tax projet la boo xam ni ministère war na ñëw dugal ci loxom jappalé ministre bi. également diko wax ni ministère économie et télécommunication dinañ nekk ci wétam ndax ñun sommes un ministère technique ñun dañuy apporter un support technique support technique bi ñu la connectivité il faut que internet soit disponible partout au Sénégal té ci que damay saluer la vision du chef de l'État ak du président Macky Sall mi nga xamni def na plus de 200 milliards ci Sénégal ci mbir connectivité qui 15 000 km de fibre optique qui au Sénégal. 5 000 km dans l'État du Sénégal. Donc cela veut dire que l'État du Sénégal a une importance de la connectivité avec Internet et de la connectivité de l'État. C'est pour dire que nous, nous devons mettre à la disposition du ministère pour que l'IA du Sénégal, les 45 départements et les régions, nous devons avoir la connectivité, mais également nous accompagner les lycées et les collèges donc mu am connectivité loolu moy tax projet bi mën réussir té loolu defe naa ni déjà ADIE mu ngi ciy liggéey FDSud mu ngi ciy liggéey mais dénañ ñu aussi mobiliser opérateur de téléphonie moy mooy ñi nga xam ne yor euh, téléphone yi pour ñoom ñu duggal sen loxo ci li nga xamni moy connectivité disponible ko def ci biir Sénégal gi yépp